Colobane moom leen na ko ne moom bu xamoon na lee la fay fekk du fa dem parce que jeunes yi chaque fois dama koy wax ji nga xamante ni ñoo nekk Colobane ak yeneen ak yi nga xamante ni ay ambulants lañ amuñu problème mu financement gis nga ay dem mujj gëm leen bëgg a booleel ñoom amuñu problème mu financement parce que koo ci demoon cantine am lu mu gàtt gàtt da nga fa fekk 5 millions wala 6 millions te DER du leen jox loolu parce que ñun xam nañ financement yi DER ni mi demee. xam nga ñoom luñ bëgg. lam leen waxoon nañ leen encadré. teg leen ci yoon wutal leen fu ñu liggéey waaye un premier ministre boo xamante ni dangaa taxaw ñëpp dégg la nga ne li xew man yëguma ko damaa toog président woo mën a ko man ci média bi laa ko yëgee il faut ma ñëw wax li non non tamit Kéba réew mi li fi xew li fi xew lan ko de démb mini mais euh, mais mais dama na la Kéba

mercredi bu ñu dajee di def conseil des ministres booba it dafa am yoo xam ne nii moom la gouvernement bi kii. dama ne la su fekkee ni à l'époque ci nguuru président Macky Sall. benn président Macky moom ak ay ministre mm. yu teeraateer yi du leen cee mm. ay yëg naa ko yëguma ko te yow chaque fois nga génn taxaw naan bërki démb laa ko yëg bërki démb laa ko yëg lépp c'est faux président Macky Sall ak ay ministres yu terre à terre yi mosoo leen cee dégg xanaa ñoom mercredi euh, conseil ministre bi ñuy def sax ministre bi dañuy ñëw toog. waaw ñu waxtaan. mais dafa am Cissé yoo xam ne moom la ñuy waxtaanee surtout événement yi fi jàll ñu ngi woon ci opération tabaski bi ne ci chômage bi ainsi de suite est taxoon lii yóbbu ñu que boobu li leen yitteloon mooy fexe ba nu Sénégal yi def mën a am tabaski boo xam ne dinañ am xaar ñi war a julli ji dañ julli ji Sénégalais yi nañu amee tabaski du état moom moo leen koy lijjantil mais dina leen ko faciliter fexe ba ñu war a andi xar yi ñu wan leen a jaar ndax fii may waxe yow am na kër yoo xamante ni ba fi may waxe yow rey ñu xaru tabaski bu xar yombee waaw mais dama laa bëgg a wax ne kon du état mooy lijjanti nit xaru tabaski xaru tabaski mais xar xar nag amoon na te et ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jënd nee nañ xar yomboon na léegi keebaa bu xar amee lan mooy jënd xar xaalis xaalis boobu moo am amul lu tax mu ñàkk seen doxalin ñoom dëkk bi lépp a taxaw mais est-ce que du tey li ngeen bëgg a expliquer dañoo xool la président Macky Sall bi mu fi ñëwee dafa def premier voyage am génn réew mi dem France bi mu demee lépp de quatre-vingt et quelques milliards bi mu ñëwee journaux yëpp def ko à la une ñu ñu ñu wane ne waa ji guerrier la indi na xaalis boo xam ne ñu gis gouvernement bi ne fi bi ñëwee génnaguñ réew mi te bi ñëwee wax nañ ne kees yi état bi dafa wédd mais ñu ngi continuer di fay ay salaire est-ce dafa am tey ñee dañoo lebi woon pour jox seen askan ñii di liggéey di xool fi xaalis nekkoon ci dëkk bi pour mën a jox seen askan parce ñoom ñu ngi fay ay salaire ñoom it kay lebi nañ Euh. ñoom i kay lebi nañ kon da naan ñoom xaalis biñ lebi biñ dikkee fan lañ ko teg. mais ñoom biñ leb. coowal euro coowal bi ne na gàdd ci dëkk bi tey nga taxaw naan ma ay leb. mais bokkut ak bu Macky Sall Macky Sall quatre nanga milliards leb boo xam ne a mu njëkk mu ñu sonal askan bi ci fay impôt lu nit di jaay lu mu tuuti tuuti ñu taxaw la da nga fay sonal la te dëkk bi dara doxul léegi kay yow loo war a wax mooy xaalis biñ lebi biñ dikkee fan lañ ko dugal waaye ñoom kay lebi ne lépp nañ ñu dàq leen demaat nañ ñu dàq leen instant bi Macky Sall defee woon ñëw rek génn dem fi nga xam ne mooy France ne damaa soxla nangam ndax kees ya dafa widd actuellement bu ngeen ci jàpput duñ fay ay salaire mais ñoom lu nu mel amul parce que toog nañ fi benn temps boo xam nga tamit nag euh, Bassirou Diomaye Faye sax dem na ba nit ñi naan lu tax du dem France mu doog a dem France benn sommet bu fa amoon booy tëkkale da ngay tëkkale nit ak ak nawleem wala moromam Hmm. ñoom duñ président Macky Sall président Macky Sall. mais ñoo ko fi jëlee de. président président waa déggoo ko fi de sénégalais yi ñoo bëgg taxaw wane li xam ne noonu lañ def ba tey Sénégal yi ñaata candidat fi ne si ñoom ñeneen sax 1 pour cent da leen tawoon même buñ taxawee. Hmm. pour ñoom jëlee fi président Macky Sall. Hmm. trois mois trois mois jot nañ sénégalais yëpp ñoo ngi jooy président Macky ñan la na non non pas waa APR parce que parce que Macky président APR président sénégalais yëpp la woon. tey jii sénégalais boo fëggoon na ko loo bëgg daan la président Macky Sall dina ndax jàppale na sénégalais yi yërëm na leen xam na seen i jafe-jafe jàppale na leen ci lépp ñii nag dafa mel ne ñoom dañoo ñëw pour noot sénégalais yi pour xoqatal leen ban dikkee da ñëwoon dund bi dañ koy wàññi dund bi ba fii may waxee yow Touba ñun dañ lañ daan jëndi dund jusqu'à présent loolu lañ koy jënd ah, dund gën a wàññi nañ ko non non déet il faut qu'on la vérité ceeb la nga ko daan jënde ba fii may waxee yow loolu nga koy jënde diwlin noonu suukar noonu meew noonu kon wàññi bi parce que ministre bi def naa démb rek dem naa démb mayoo ma wax la ministre bi ministre bi keroog ba mu njëkkee wax lu di ko dégg hmm. fii di la mais def nañ la 27 juin bi ñu génn conseil régional man maa la wax ne man ba fii may wax ak yow hmm. bi ñun lañ daan jëndee ba léegi yokkul wàññeeku foofu lañ ko teg loolu lañ ko daan jëndee dund bi wàññeekuwul courant bi ba fi may wax ak yow dafa gën a cher. mais courant moom bokkul si ñu wàññi. non dañ ko war a wàññi nag parce que ñoom ñoo ko wax ñoo ne réew moo xamante ni am na gaz am na pétrole am na naaj am ne mun a am na ko courant waru faa cher man wax Ousmane Sonko rek laa lay waxaat. ba léegi mais yéen jar ba léegi loolu lay jar dafa mel ni yéen ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ndax le président Macky Sall mënut a def ci réew mi tey boo xoolee dund gi gën a seer courant bi gën a seer ainsi de suite tey jii benn gouvernement ñëw fi 3 mois ngeen bëgg wax ne na wàññi li na def li est-ce du wane ne am loo xam ne waroon ko def damaa bëgg nga non non mayoo ma expliquer président Macky Sall bi mu nekkee ci ci Sénégal hmm. dund bi dafa cher ba tey mën nañ koo nangu parce que dañu Sénégal émergent réew mu nekk ci yoonu émergent nag man si sama gëm-gëm sa dund munul yomb gis nga bu fekkoon Ousmane Sonko bi politique loolu la ñu tegal. ñu mën koo comprendre moom moo ne dafa war a yomb man ci boppam Ousmane Sonko bu dund bu seeree man mën naa leen a comprendre ne dund bi mënul yomb parce que réew moo xamante ni li ëpp ci li lekk dañ koy jéggaane da ko indi dëkk boobu seen dund mënul yomb mais moo taxaw gëmloo sénégal yi ne dund bi dafa war a yomb. moo ko wax dund bi dafay war a yomb ndax mën nañ ko ndax Sénégal am nañ ay ressources am nañ géej am nañ lii am nañ naan lu ne mun a Sénégal am nañ ko comme moom moo ko wax te gor amul lu dul ay kàddoom nañ wàññi dund bi ngir yàlla. wàññi nañ ba de mondial plus de 53 milliards yoo xam ne may waxee yow laa la wax ba fii may waxee état moo koy génne encore ba fii may waxee yow et puis ay def nañ ay moyens ñu ngi fay ay bor yoo xam ne président Macky Sall moo bor moom de combien de milliards génne nañ ko fay ñi nga xam ne ñoom ñooy eh, nekk si wàllum gerte gi fay leen seen xaalis. xam nga barki démb bi nga xam ne président bàyyi nañ ci vingt quelques milliards fay nañ ci plus ba fi ma wax ak seen xaalis fay ñu leen lépp. beneen bi mooy mais boru 300 la woon. boru 300 ñu ko fay. si kii def na ba ñu fay 200 yi. la rest moom dañuy audité ba xam nu mbir mi. di ba état wax ak euh, bor bor. ak état ñoom ñoo ànd. waaye boo fekkee da nga ne dañoo fay bu fi may waxee. mais état fi nekkoon it boru ñetti at ci koo xam ne dafa war a liggéey ndax moom mi nga xam ne mooy commerçant bi mooy dem ci àll bi jënd gerte gi ci euh, baykat yi indi ko yóbbu ko ci usine yi moom tey jii nga yoreel ko boru 300 yi loolu it. est-ce que neex na expliquer. pour nit ñi nga xam ne mais ñoom ñoo fi ne nañ ko fay ñoo yor état bi nañ ko fay mën nañ ko. ñu ñu ngi fay kay fay na ñaari di mu des bu mujj bi. léegi nag nañ ko fay te baykat yi ñu jox leen seen jiw yi parce que jiw bi nga xamante ni ñoo commencé di ko séddale baykat bi xaaj bi jiw bi baaxul dégg naa nag ku ne jiw bu baaxul ñu porté le plainte bay boo ñu indi ma sama bos parce que. plainte am na ñu ci yóbbu gendarmerie. jiw bi baaxul si jiw bi baaxul. waaw te jiw bi baaxul liñ leen liñ jox baykat bi fi mu toll nii baaxul lii dafa am suuf am na ci yoo xamante ni mënul jiw